Goudomp la doomu Sédhiou la doomu Casamance la doomu Sénégal la kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ki la may cër nag moo la defal teraanga moo waral tey man mi nga xam ne maa nekk ci biir gouvernement le premier ministre Amadou Ba waaye nekk président du conseil départemental de Sédhiou ma am fi cër mu may ma cër boobu woo ma ñëw uy si ko ndax Souleymane ñëpp ñëpp ñëpp la boole kon Souleymane gàcce ngàllaama lii nga def nii tabaar kàlla tabaar kàlla tabaar kàlla weddi gis bokku ci waaye nag Souleymane nga may ma tuuti ndax danga ne yaa ngi sargal président de la république son excellence Macky Sall ku sargal nag sargal nga ku jara sargal ñun nag damay wax ci turu doomu Casamance ndax président de la république son excellence Macky Sall deseluñu dara Casamance vous dit à Barka Numbara président ba nga ñëwee bi à hein, tous nos amis santé du monde le sentiment de satisfaction qui m'anime en venant aujourd'hui et en voyant cette belle mobilisation des femmes et de la jeunesse de l'Union de, de, de, Félicitations pour ton engagement, pour la réélection, pour l'élection de notre candidat, le Premier ministre Amadouba. Je je voudrais saluer tous les militants, saluer tous les responsables et toute cette forte mobilisation qui témoigne de l'affection qu'ils ont manifestée à l'endroit de notre président, le président Macky Sall, pour sargal ko dukkal ko ko pour rappeler ko Sénégal Macky Sall je nañ le président Macky Sall di ko gunge ñooñ Amadouba. Je ci Amadou Ba est un grand commis de l'État quelqu'un qui a pratiqué l'État dans toutes ses arcanes nekkoon directeur nekkoon double agent directeur jox fa nekk directeur général nekk ministre

croissance pour amener le président Macky Sall il faut que nous appelions le candidat Amadouba Ba pour ce soir du 25 février 2024 ñu ne vive le président Amadouba. C'est si loolu si le frère Souleymane va y contribuer dans une grande partie parce que je connais sa capacité de mobilisation à Dakar en Casamance, à Saint-Louis, à Tamacoundamé, un peu partout. dans Suleiman dans le cadre de la grande coalition, coalition centriste, je te tends la main pour que ensemble nous marchions vers la victoire au soir du 25 février. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président Abdoulaye Baldé, directeur général de l'APIX plusieurs fois maire du Jaège tout à l'heure et plusieurs fois ministre. Merci beaucoup. Alors je voudrais rappeler que euh, Abdoulaye Baldé est membre également de son parti. Son parti est membre de l'Union internationale des démocrates centristes. Merci beaucoup. Merci. Alors, les Guinéens, de nouveau, de nouveau, de dañu de nouveau, avant nous, dougal artistes, parce que nous avons trois artistes qui sont là monsieur le premier ministre donnez la sargal parce que man maay sen quand on a ma l'ol, nous ñu sargal la merci beaucoup alors je voudrais appeler merci beaucoup. Légui, Nigiwa, Monsieur Abdoulaye Gagne. Abdoulaye Gagne Kokumboy, le coordonnateur général du parrainage Beno Ok, d'accord. Assalamu alaikum, Monsieur le Premier ministre, candidat de la coalition Beno mon cher ami et frère, le DG de la SAPCO, Souleyman Ndiaye, secrétaire général du parti SDD, 2 d Monsieur le ministre Mongom et toute l'assistance, je vous salue. Je pense, l'Itaron m'a hésité moi, suñu kilifa dafa ñew le premier ministre Amadou candidat de la coalition Benno Bok donc liñu wara wax dina tout ce que je peux faire aujourd'hui c'est de rendre ou bien de dire des témoignages à l'endroit de Suleiman Ndiaye Souleymane c'est un frère un ami de longue date mais écoutez, la mobilisation des jeunes la mobilisation des femmes le parti SDD né en 2018 est un parti jeune mais un parti très bien organisé un parti qui a une capacité de mobilisation exceptionnelle et cela découle du sérieux de l'engagement et de la détermination de tous les coordinateurs régionaux, mais aussi et surtout de son secrétaire général Souleymane Ndiaye. Donc, Monsieur le Premier ministre, candidat de la coalition Benobok Yakar, vous pouvez compter sûrement sur la SDD pour votre élection dès le premier tour au soir du 25 février 2024. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc euh, nous recevons d'autres autorités qui viennent de franchir le plateau. Les Yenak, nous progressons. Waouh. Nous avons Dire kilifa ñi y ranger ci réew mi def lu am solo ci république Les nak à la suite de notre ami Abdoulaye Diagne chargé de coordonner les parrainages de Benoît Bokayakar nous allons inviter ici monsieur Morgom sous vos applaudissements monsieur Morgom. Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Euh, Assalamu alaikum yu mbokku S2D sama Dubari, mani damay nuyu yep, sant ñëpp gërëm ñëpp mais ngeen may ma dafa nekk xale boo xam ne nii dafa taq ci président Macky Sall taq boo xam ne nii damay wax ne Souleymane dafa laxasu ñàpp kenn mënu ko ak président Macky Sall Souleymane nekk xale bu loxoom set Souleymane nekk xale bu jàmbaar Souleymane nekk nit koo xam ne nii bu xasee ba jàpp deetul baax bàyyi parce que ciment la benn lay Benno Bokk Yaakaar bi nga ci ñëwee yëg nañ ne am na gan goog si ci biir Benno Bokk Yaakaar Souleymane lépp loo xam ne nii président Macky Sall yëkkati na ko ci liggéey kenn mënu la kon nag bu ñu taxawee fii dinañ la ko seedeel ñoo ngi wax rek candidat bi nga xam ne moom la président Macky Sall joxoñ ñun tànnuñu ko Macky Sall moo ko tànnal boppam Benno Bokk Yaakaar tànn ko kon nous avons ci le candidat Amadou Ba pour que au soir du 25 février nous ñëpp ñu dégg vive le président maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë wa salam. voilà merci merci beaucoup mon très cher ami Morgom jërëjëf di le, le féliciter aussi ci liggéey bu am auprès du président de la République du du également euh, le le mouvement Benno Bokeyakar. Yakar. mbokk s'il vous plaît Légui, Bespire, c'est un rappel tout simplement c'est l'anniversaire du parti politique S2D Yoonu cinquième anniversaire Souleymane Ndiaye que son excellence le président Macky Sall président de la république Moutani Kidi Amadouba, n'est que Yola ne Yola yow pour le candidat de Benobokayakar. Bokk Yaakaar le roi du Balantakunda. ñu le gâteau de la Casamance le gâteau de la Casamance le président Suleiman Diaye président, directeur général de la SAPCO. Président, directeur général de la SAPCO, Monsieur Souleymane Diaye, qui a réussi une mobilisation. Teni, Mosuleham, Tchigéobi, des d'Esplanade du théâtre de Ndiaye Koumerose. De leen loxo yi loxo yi loxo yi loxo yi loxo yi loxo c'est le roi du Balatokunda c'est le gâteau de la Casamance c'est le directeur général de la SAPCO le président secrétaire général

Vous êtes mobilisés Vous venez de toutes les régions du Sénégal De tous les départements du Sénégal de toutes les communes du Sénégal pour venir accompagner Monsieur Souleymane Diaye directeur général de la Santé le roi du Kounda. Vous avez la parole. Souleymane Sénégal Kutinyam dikulinam jamle sabul kasumai. sama mbokku balante yi bacol na alla begin mbadi mbandi kol anaka moy lal mbal be konton na mbal jaylan bandiraɓe sehlaɓe min salmini on o fogole sereer mehe simna nun sama mbokku maa leen di wax mankañi maa leen ulef sama mbokku wolof yi maa leen di wax maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm suñu mbokku saraxule yi leen di wax ani soxoma yaakaar naa ne fàttewuma kenn fàttewuñ kenn merci beaucoup merci beaucoup xam man munu ma fay tout d'abord Mangi nuyu monsieur le premier ministre muy candidat de la coalition Benobokoyakar, Bokoyakar. monsieur Amadou Ba ñu du kontaan lol ci un fils. di nuyu également ministre yu nga xamné ngi fi nuyu suñu xarit Abdoulaye Balde, nga xamné wax deug yalla taxawayam a intégré l'international démocratique centriste monsieur Abdoulaye Balde ñu lay nuyu di nuyu madame le ministre Annette Sek Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax suñu sœur bu baax la moom mooy suñu ministre ci région de Sédhiou di nuyu également kilifa yu fi teew yépp ñu ngi nuyu le président du conseil départemental de Goudomp monsieur Bouka Moussa Bokoum ak maire yu nga xam ne ñu ngi fi di nuyu monsieur le maire de Djibanar de nuyu monsieur le maire de Djende, de Nuyou, monsieur le maire de Bogal di nuyu monsieur le maire de Ndjamokuta, de Nuyou, monsieur le maire de Djireji de Nuyou, monsieur le maire de Sali Escale de Nuyou, honorable député yu nga Nigifi, de ñi Kilifo, fi di nuyu kilifa honorable député Abdoulaye Diagne ñu koy du nuyu le DG de l'ASPT Pape Mahawa Diouf di nuyu également le président du conseil d'administration de la SAPCO Dr Amadou Tijan Diba du nuyu également PCSU ASPT merci beaucoup merci beaucoup monsieur Chai Djabi. di nuyu faut yu fi teew yëpp ñi nous également kilifa faut yu nga xam des bàyyi nous lépp ndaje bi wax dëgg yalla amuñ fay mais ñun ñi ngi pour sargal son excellence président de la république Macky Sall dama bëgg ngeen Tay, tay, tay. bëss bu màgg la ñu ngi feete suñ juróomeeli anniversaire bu parti synergie pour un développement durable SDD yoonu tangé suñu yegsee bi tay suñu yegsee bi tay. gannaaw yalla du man mais yéen ñii la militant yi yéen tax ñu donc man awma seen fay am na ñu nga xam ne man gis naa ñu nga xam ne huit heures si suba leen ñëw fii Grand Théâtre ñu bari amaana sax ñibbi neen parce que si suba ba tey ñu ngi fi taxaw man awma seen fay dama leen di bàyyeeg allahu subhanahu wa taala moom moo am fay donc maa leen di gërëm bu baax parce deen wax ne la in zakartum la na azidannakum te wax ne ne également man lam yaskuru naasu la yaskuru la donc man il faut ma gërëm leen bu baax merci beaucoup jeunesse bi merci merci merci ñu degloo lu may wax dafa am solo lan moo tax ñu ne dañu sargal son excellence le président de la république Macky man yàlla dogal na bu ma duggee ci politique yàggul

Son Excellence le Président de la République Sall m'a fait confiance pour la première fois à mon nom directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal qui a abouti à la reconstruction de l'aéroport international Ousmane Mbacké Ndiaye de Saint-Louis nga maintenant mettre en service en 17 décembre dernier Nous ne renouveler la confiance à la tête de la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal ñun nous sommes te gormom do man xam ngeen ma militant yi kuma wax mënul dama lay naan de mais wax dama koy parce que den wax ne den wax ne den wax ne ñu déglu ñu dégloo ñu dégloo den wax ne jaa al haqu wa zaqa al baatulu in al baatila kaana zawuqa su dëgg ñëwee su dëgg ñëwee fen day randu ñëpp xam ne ne ñëpp xam ne ne ñëpp xam na ne allahu subhanahu wa moom kese moom mooy joxe nguur de moom moo ko wax xuli allahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha kenn mënul am nguur si pexe kenn mënul am nguur si fen kenn mënul am nguur si violence nguur si luñ ko mën a ame mooy lan mooy yàlla yàlla tudd ko su ko yàlla tuddee loolu ku si mën dara yàlla moom mooy faxaalun li maa yàlla maa tayam la yor yàlla maa tayam la yor n'est-ce man lu leen jox amul kenn kenn kenn kenn ku fi taxaw si mbooloo mi ne jox naa ko cent francs pour nga ñëw taxaw fii amul da ngeen da ngeen ñëw braver chaleur bi lu may wax dafa am solo lu may wax dafa am solo xam nga ku mobiliser rek ñu ne dangay fay ay nit man amul kenn ku ma mën a fay te nit kenn mënu ko jënd sénégalais yi jamono ji dañoo conscient kenn mënu leen nax man na dëgg laa ànd ak yéen moo tax fu ma leen woo noo leen di def

Waye, voilà may continuer dama baga, ñu jox cadeau bu SDD préparel son excellence le président de la république Macky Nous ñu jox ko monsieur le premier ministre par dogal na le président Macky Sall pour que mu le candidat de la coalition Benno yakar Yakar, n'avons yàlla dogal na ñun duñu naxe jamais de la vie yàlla dogal na président de la république Macky suñu diggante weesu na politique moo tax wax dëgg yàlla kum ñu joxoñ ñun kooku la ñu xool su jëloon carton bi ne ñu ñun kii laa joxoñ su boobaa ñun kooku la ñu xool te comme yàlla dogal na comme yàlla dogal na joxoñ nañu premier ministre Amadou Ba incha allah rabi SDD yoonu Natange, moom la ñu pour qu'au soir du 25 février 2024 nous gagnions dès le premier tour Inch'Allah rabi. Merci beaucoup, merci, merci, merci, merci, merci. Lolou, devant am solo lol. élections. élection élection élection kenn du ko gagné ci caaxaan noo leen mobiliser aujourd'hui, noonu laa leen demandé gën a mobiliser man fu ma leen vous wuy si donc wax vous yàlla maa ngi la jeunesse est-ce que vous parlez pour le combat jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi ñu ngi leen di laaj ndax pare ngeen ñu ngi laaj ñu ngi laaj waa SDD yoonu naataange ñu nga xam ne ñu ngi Casamance est-ce que al pare Taliban merci beaucoup jërëjëf jërëjëf Allah barka jërëjëf jërëjëf jërëjëf dama bëgg lu ma bëgg lu mooy yéen ñëpp ngeen jóg taxaw ne président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall jërëjëf président Macky Sall jërëjëf président Macky Sall jërëjëf te ñu ngi koy sargal bu baax a baax a baax pour lépp lu nga xam ne defal na ko réew mii di Sénégal Sénégal mënuñ ko fay wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa leen gën a kontaan maa leen gën a terminer munu terminer te duma féliciter ak remercier les membres du bureau politique du parti SDD Yoonu tangé sen taxawaay rafet ñi ñu ngi féliciter également les coordinateurs départementaux ñëpp gis neen ñëpp gis neen parrainage bi parrainage bi nous parrainage citoyen la ñu en 51 jours nous avons réussi à collecter plus de 223 000 parrainages citoyens doyul siège SDD ñu nga plus de 80 000 parrainages donc lolu lolu su sommes su amé du sama njambar du sama parce que man fayu ma leen dara da ngeen ma bëgg ma bëgg leen loolu su amee loolu ñun xam ne ne la hawla wala quwwata illa billah amuñ kattan amuñ mën-mën yàlla subhaanahu wa taala la donc ñu ngi ko koy santé waaye di leen gërëm yéen ñii di militant parti SDD yoonu naataange wax dëgg yàlla kontaan naa kontaan naa lool te gën leen déterminé wu gën leen préparé wu nous avons assisté à tous les combats merci lu may wax c'est important Puis Sénégal Sénégal Sénégal nous xam ne ne bu affaire yi bu affaire tangé, tàngee ñëpp daw ñun dañoo taxaw dañoo taxaw dañoo taxaw musuñu daw merci beaucoup merci merci merci merci lu may wax dafa am solo ñun parti SDD yoonu naataange yàlla dogal na bu affaire yi méttee dëgg ah ñu bëri daw leen de waaye ñun musuñ daw dañoo mus a taxaw parce que ñun lu ñu gëm mooy que population bi soo àndeek ñoom lan ngay ragal doo ragal dara moo tax waa Kër Massar defoon naa fa doxantu de 16 heures à 2 heures du matin ma demoon naa ni ataaya a ñaari tali demoon naa naani café également à golf demoon naani café à Darou Khan localité yu nga xam ne demaguma fa waa parcelle préparé leen dinaa ñëw naan si café waa Médina préparé leen dinaa naan si ataya waa Podor dinaa ñëw insha allahu rabi waa Matam dinaa ñëw dinaa ñëw ñu naan ataya waxtaan merci merci merci merci merci merci beaucoup merci beaucoup merci merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam naa ne premier ministre jóge na ci réunion ak ñu mu àndal gudd na ngeen jéggal ñu waaye Faites-le la pour suñu parti SDD yoonu c'était pas évident en cinq ans nous avons lu nga xam si réew santé le la Bouba. dañ koy sant yàlla bu baax dañ leen di ñaax carte de membre yi continue continuer installer les cellules de base du parti de préparer wu pour élection présidentielle de 2024 nga xamné inshallah rabbi ñu engagé ñu gagné dès le premier tour donc contana Lol, Al albarka alma Kairo Siala, merci beaucoup Jo njal jokko njal à part alabarka Ala alabarka alabarka xam xamna dañu jox cadeau bu nga xamné mom lañu sargalé sargale président de la république Macky Sall ñu jox ko au premier ministre Amadou candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar maa leen di gërëm di leen sant bu baax merci beaucoup Ah, c'est le cadeau. C'est le cadeau des de gens des partis. Wow, cadeau bi c'est les jeunes du parti Nous avons le président Suleiman Ndiaye en tout cas toutes nos félicitations encore une fois. Voilà, merci beaucoup, merci. jërëjëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci ngeen merci beaucoup jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci merci Wa gis na kàddu c'est pas la peine de monter waaw euh, wan s'il vous plaît on va remettre le président Souleymane le cadeau voilà merci beaucoup voilà merci merci Les voilà donc le cadeau euh, hein? d'accord ok d'accord donc euh, monsieur le premier ministre nous vous demandons de bien vouloir recevoir ce cadeau qui est euh, décerné au président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Voilà, moi cadeau Sargalbi. Wow. Alors maintenant, le Premier ministre va s'adresser à vous maintenant. Vous le cadeau là-bas en face euh, en face de toutes les caméras. Voilà. Le Premier ministre reçoit le cadeau, le cadeau du président de la République offert par M. Suleiman président du parti politique S2D, Yonou Voilà, ce cadeau donc vient d'être reçu par M. le Premier ministre Amadouba, à qui nous allons donner la parole. Le léegi Mbolomi mbolomi toute animation rek le temps que monsieur le premier ministre Amadou Ba candidat de la coalition Benno à l'élection présidentielle de 2024 merci merci merci merci Jerejef, Jerejef. camarades membres de SDDD, 2 dd maa du féliciter di len encourager di féliciter particulièrement Souleymane Diaye pour son engagement pour sa détermination et les grandes mobilisations qu'il nous a. Tay, ci mobilisation yi muy def bi est un homme engagé un travailleur lolo moko en si peu de temps mu dajale lu day nii féliciter c'est le Sénégal dans son ensemble qu'il est parvenu à mobiliser mobiliser pour sargal le président Macky Sall qui vous salue qui vous remercie sargal nga ku sargal ndax liggéey bi nga xam def na ci Sénégal sargal nga ku ñu sargal ndax téye téye na ko Sénégal may rafetlu la présence des jeunes et des femmes Dylan encourager encouragé wachni. wax ni président def Nous ñun je puis vous dire j'irai encore plus loin xam on ira, on ira encore avec vous plus loin. On ira encore avec vous plus vite. Parce que vous le méritez, mais surtout, nous am ci lu pour mën a dem ndax ku am ci am wute naa koo xamante ni fa dara bëgg a liggéey moo tax bu ngeen sargalee président dañ ciy ànd ak yéen ndax am na lu fi nekk li fi nekk bari na vous avez cité le TER mi ngi nii sunu ginnaaw vous avez cité le BRTR BRT suba suba dinañu commencer essai motax may inviter les populations de Dakar suba ba Guédiawaye BRT bi dina dem bu dem plus loin dem plus vite Yoko, ko Lolo yomb je vous demande avec vous et pour vous qu'on maintienne la flamme de l'espoir, la flamme de l'engagement, la flamme de la détermination. On a une jeunesse qui veut travailler. On a des femmes engagées on a aussi des leaders politiques, à l'image de Souleymane Ndiaye, qui sont très déterminés, qui sont très déterminés à servir la République. Je ko ko tu es un travailleur en tant que tel tu pourras compter sur moi dinañ la jàppale dinañ la dëgëral dinañ la yokkal ndax président moo ñu ko sant moo ñu ne képp kuy sama njaboot rawatina sama njaboot bi ma déggal sama njaboot bi nangoo liggéey jàppaleel ma ko téyel ma ko kon Souleymane je te prends avec moi. Et Inch'Allah, tu vas participer de manière active, comme tu le fais maintenant. Tu vas participer encore davantage à la construction de ce pays. Merci pour la grande mobilisation, pour le soutien. Je disais, fondement ba vos je me positionne comme le président de l'emploi la jeunesse vous que vous veniez de Podor ou de Loboudou ou de Douye de Dakar ou de Seyou, l'avenir de ce pays l'avenir de ce pays Nous y sommes déjà. Mais le présent, c'est avec vous. Et ensemble, on va construire l'avenir de ce pays. Merci, merci, merci, merci. waa ji la ñuy déggee. dañ ko noo dañ ko noo Souleymane Dia. parti S2D Souleymane la ñuy sago. dañ ko noo dañ a noo Souleymane.